salaamaaleykum téléspectateur wu Equivox TV tey mbégte la ñuy am di dalal monsieur Abdou Khadre Fall nekk euh, chargé des relations extérieures bu Promoville monsieur Fall ñu ngi leen di. Euh, ñu ngi leen di fay maanaam. monsieur Fall ñu leen di laaj année mooy problème mu Promoville ak Free d'abord. waaw bon problème bi euh, peut-être damay démarrer d'abord ak euh, la décision politique bi bi état du Sénégal jël. c'est-à-dire euh, pouvoir créer des MVNO yoo xamante ne daf leen di adossé kenn ku ci nekk un opérateur pour ñu ànd di liggéey donc euh, bi ñu bi état bi defee loolu ñun yàlla dafa def sur presque cinquante sociétés yoo xam ne ils avaient souscrit ci pour pour mën a nekk un MVNO on a été parmi les trois qui ont été retenus Euh, dont Youssou Ndour qui part avec Orange El Hadj Ndiaye qui va avec euh, Expresso ak ñun nga xam ne ñun on devait partir avec Tigo donc euh, bi yàlla defee loolu dans la réglementation ki nga xamante ne c'est le MVNO nga xam ne dañ ko booleeg un opérateur ils doivent se rencontrer pour maintenant établir un contrat commercial qui permettre une certaine collaboration commerciale entre les deux sociétés. donc euh, bi yàlla defee loolu on s'est rencontré avec Watigo ba avancé woon ba daanaka on était prêt pour pouvoir démarrer entre temps Free racheté Tigo bon bi ñu ko racheté également euh, ils nous ont rencontrés ñu daanaka peut-être recommencer un peu les les tractations commerciales li ñu waroon am ak euh, ak waat fri yi mais il s'est trouvé que waa fri les prix qu'ils nous proposaient prix yi dafa dafa dafa dafa mag exemple disons c'est comme ñoom s'ils vendaient par exemple à leur euh, client euh, vingt cinq francs ñun ñu bëgguñu ñu jaayee cent francs donc li ñuy jaayee si plus cher que ñoom li ñuy jaayee seen clients yi alors que ñun ça devait être le contraire dañu war a jaayee lu lu gën a yomb parce que NVNO d'ailleurs loolu mooy kiyam nous on doit vendre moins cher que opérateurs yi nga xam ñoo fi nekk donc bi ñàkk juboo boobu amee sur le plan commercial donc euh, ñu dem nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yore la réglementation muy l'ARTP parce que ci noonu la d'abord on laisse les deux sociétés ñu waxtaan xool su dee am nañ vraiment euh, entente commerciale c'est bon su fekkee nag amuñu dañu war a dem maintenant ci euh, euh, ARTP donc on a kon dem nañ ARTP ñu recevoir ñu d'abord en aparté ku nekk wax un peu ni nga gisee mbir mi ensuite ñu dajale ñu. bi ñu dajalee ba pare l'ARTP jël une décision non dañu dañu ne sax delluwaat leen ils nous ont encore nous retrouver et jéem a waxtaanaat bi ñu demee jubóowuñu nag ñu dellu si waat en ce moment nag l'ARTP de façon vraiment euh, ñoom ñoo war a en ce moment nag jël une décision par rapport à ça donc ARTP Euh, jël décision à travers le collège ñu ne nag léegi jël nañ une décision léegi fri yéen lii ngeen di jaay waa Promobile jël une décision vraiment envoyé ñu ko envoyé ko waa fri donc en ce moment-là nous nous on pensait que le problème était réglé mais à notre grande surprise on a vu que fri malgré l'injonction du de de l'ARTP ñu ne duñu duñu def li ARTP wax alors que réglementation bi nga xamante ne moom moo moom moo moom moo réglementé mbirum euh, téléphonie li mu wax c'est très clair dès que ARTP moom joxe na décision la la décision moom elle elle entre immédiatement en vigueur da nga ko war a da nga ko war a def donc Free nag pour ñun ils ont ils ont défié l'État c'est en ce nag on a dit écoutez lii nag mi ngi bëgg a ëpp il faudrait que même qu'on qu'on parle un peu au peuple wax ak wax wax ak nit ñi wax ak wax ak wax ak vraiment euh, ñëpp xamal leen nag difficulté yi nga xamante ne am nañ ko en tant que société sénégalaise biñ ko defee nag vraiment c'est une occasion de vraiment remercier l'ensemble des personalité religieuse, politique, la société civile, parce que vraiment depuis notre euh, de, notre conférence de presse nit ñi fu ne ñu ngi woo vraiment et, et, c'est vraiment l'occasion de de de, de remercier ñëpp daal waa waa Sénégal ci ci ci loolu nga xamante ne daal soutien moral boobu nga xamante ne vraiment ñu ngi koy sentir à à à niveau. ok est-ce que dañu mën da ngeen gis ni état bi wax ci. Mhm. wala da ngeen bëggoon mu wax ci lan ngeen bëggoon mu wax ci réellement. waaw xam nga bon parce que état bi wax na ci. parce que l'état a pris la décision. de donner maintenant euh, prix yi nga xamante ne waa Free moom la ñu war a jaayee maintenant Free nag ñoom ñu ëlbatiku ne loolu nag état bi wax leen ñoom duñ ko def donc c'est ça le problème maintenant ce qu'ils encourent je pense que dans les jours qui vont venir dina am ay parce que loolu bu bu fekkee maintenant l'ARTP wax la leen defal lii defoo ko maintenant il y a dafa am nag ay amande yooyu encourir et la la la première amande elle est pécuniaire c'est-à-dire sur le plan financier euh, euh, waa ARTP dinañ amender waa Free te amande bi mën na dem ba nekk. 3 pour cent de votre chiffre d'affaires de l'année dernière donc ça pourrait tourner peut-être autour de 3 milliards d'amende beneen bi mooy une suspension provisoire de leur licence boo xamante ne mën na nekk trois mois mën na nekk 6 mois et là sur persiste maintenant l'état de de de de droit peut même le, le retirer maintenant la licence complètement parce que gis nañu dégg nañu fa ni sax na ni da ngeen nekkoon partenariat est-ce que réellement Free ak Promobile lañ nekkoon partenariat. mais mais c'est ça l'idée l'idée l'idée mm-hmm. l'idée et vraiment c'est l'occasion peut-être de remercier le chef de l'État mm-hmm. parce que loolu sa permet non seulement une entente commerciale entre deux sociétés mais day tax également peuple bi le téléphone l'internet soit beaucoup plus accessible Parce que nous, Enveno, c'est, dison on fait tout ce que les opérateurs font. Mais nous, on n'a pas de plateforme. C'est-à-dire on passe par la par, par, plateforme Tigo pour pouvoir faire notre travail. Donc loolu mooy loolu mooy Envenon et, et, et ça se passe très bien partout dans le monde en France vous avez Lika Mobile vous avez d'autres qui aux États-Unis xam nga même maintenant en Afrique vous l'avez au Cameroun et un peu partout. Donc vraiment, nu ça nous, ça nous a Le fait que vraiment Free, de façon vraiment kii mu ñëw daal taxaw ne état bi du ko def donc pour pour ñun vraiment dañu dañu défier l'état maintenant on fait appel au président de la république pour que tout simplement que waa Free xam ne ils ne sont pas dans un pays conquis le Sénégal c'est un pays boo xamante ne qui est régi par des lois comme euh, nu mu tuddati maître El Hadji nu mu ko waxee am na loo xam ne sax ça ça dafay mel ni de la de la parce que tout simplement si tu te mets vraiment ci euh, bu fekkee loi bi yow da nga ko dang ko teggi teg fële rek loolu mooy délinquance ba nga xamante ne également on lance un appel à fri pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments parce que comme tu la dit hein ñoom ils gagnent plutôt à ce qu'on travaille ensemble parce que bu ñu bu ñu travailler lépp lu ñu def ñoom dañ ci am donc c'est c'est c'est vraiment du du win-win quoi donc l'intelligence mooy vraiment qu'ils viennent qu'on discute et puis qu'on trouve des solutions vraiment pour le bien du peuple sénégalais Parce que il faut dire que le, le, téléphone est trop cher, l'Internet est trop cher. Et je pense qu'avec l'avènement des, des NVNO, le peuple bi dina ci mën a gis boppam bu baax a baax a baax. lan moo ko retardé lancement wu Promobile bi bañ ko doon xaar boobu ba tey mënuñu am lancement bu leer boo xamante ne di ngeen ci mën a nekk en activité lan moo ko waral. waaw lancement bi li ko retardé mooy lii rek ñàkk euh, par exemple euh, euh, signature un contrat commercial entre ñun ak ak ak ak Free. parce que bu ngeen ko seetloo on voulait lancer euh, depuis euh, le mois de juin depuis le mois de juin la ñu bëggoon kii mais xam nga rek ñu ñuy dawloo tey ëllëg sunu lii pareegul xam nga di ñu jox ay prix yoo xamante ne c'est sûr que c'est des prix que nous nous allons nous nous nu nous allons jamais accepter xam nga disons daal dañu def euh, ils ont fait du dilatoire. pour nous pour pour nous retarder xam nga après juin bi bon y a eu le 27 septembre avec l'ouverture de Massalikul Jinaan on vule vraiment lancer ko ñu def di dilatoire après y a Magal xam nga ba ñu def beaucoup de communication ngeen gis ci télé yeeg yëpp également ça alo xam nga après y a eu le encore tombé à l'eau donc ba nga xamante ne et ce qui est grave mooy dafa am ay conséquences financière pour notre société. Parce que tout simplement, nous, depuis, on est prêt sur le plan technique. Actuellement, on est, on est, on est un peu partout au Sénégal. On a, on a, on a créé des, des, des, des sièges un peu partout. On a, on a, fu nekk daal dans dans toutes les régions on est représenté xam nga am fa un siège social xam nga dans les plus grands départements également on est représenté jusqu'à Ourossogui xam nga donc donc locaux yooyu c'est c'est c'est des frais yoo xamante ne dañ ko def xam nga équipé en bureautique et tout et puis on a recruté plus de trois cents jeunes yoo xamante ne depuis le mois de juin ils sont payés parce que nous on pensait qu'on allait démarrer au mois de juin donc depuis juin ils sont ils sont payés tous les mois xam et tous ces frais tournent autour de cent dix millions par mois yoo xam on le sort te bon voilà si ça continue si le problème n'est pas réglé on risque également de, de, de fermer boutique. Et ce serait dommage pour l'ensemble de ces jeunes, pères de famille, mères de famille qu'on a à nga Ils maintenant vraiment tous les mois, ils sont payés. Mais sur le plan de la logistique, toutes les voitures qu'on a achetées, les camions, toute cette logistique qui tourne autour, autour de, de voilà, de, de, de la téléphonie. vraiment comme je l'ai dit tantôt vraiment affaire bi moom il faut il faut il faut qu'on le règle quoi et c'est dommage que euh, réew mi ay doomu réew mi surtout que c'est la première fois que ñu am vraiment une euh, une société mais à 100 pour cent sénégalaise xam nga tout le monde sait que cette société elle, elle appartient à Serigne Bakiou Faye et puis voilà qui a pris des Sénégalais des jeunes qui sont là et c'est une façon aussi pour nous de prouver au monde que mais lu tubaab bi di def nous on peut le faire donc c'est ce défi que nous voulons euh, vraiment relever mais ñi on sent que vraiment y a un problème fri ils veulent pas nous laisser travailler et là comme je le dis maintenant ñi ngi déglu état bi et je sais que ci biir semaine bi moom bon moom c'est sûr que l'état va va taper très fort. donc on peut en déduire que ni tant que ñoom signé wuñu kii bi yéen mënu leen dem yéen instant yi ci ñoom rek ngeen basé wu pour ngeen mën a Ouais, ouais. Effectivement, on ne peut pas sans accord euh, commercial, ça c'est évident. Donc il faut, il faut qu'on soit d'accord sur l'accord commercial pour pouvoir démarrer. Parce que comme ni ma leen ko expliqué ñun seen plateforme la ñuy utiliser. Parce que bon maintenant plus tard peut-être avec l'État xam nga tu commences par un NV non après bon mais pour l'instant nous on est obligé d'aller avec avec avec avec avec Free. ba nga xamante ne donc euh, mi ngi noonu daal ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñaan. ñu ngi ñaan on espère ah ñu ngi ñaan yàlla on espère vraiment trouver une solution euh, ak waa Free mën a mën a démarrer voilà mën a mën a démarrer pour vraiment le bien du peuple sénégalais xam nga parce que là vraiment on a travaillé jour et nuit xam nga et on est vraiment dans les dispositions de pouvoir démarrer et je sais que bu ñu démarrer le peuple sénégalais dinañ sentir vraiment l'arrivée de de de Promovilles ok est-ce que def ngeen ci li ci war yëpp wàllum communication et tout di nga xam ne di ngeen mën a convaincre waa Free pour ñu mën a liggéey leen est-ce que def ngeen investissement comme ñoom ñu e investissement. oui euh, euh, cest dire euh, parce que parce que lii entente commerciale dafa mel ni de façon très simple ah tu nga dem gis par exemple un grossiste mu lay jaay ngay dem di jaayaat xam lu ma la mais grossiste bi au lieu yow yow yow yow yow mu lay mu lay jaayee loo xamante ne di nga ci mën am dara moom mu bëgg la jaayee lu lu gën a cher lu muy jaayee au détail donc c'est aussi simple que ça donc euh, de façon vraiment truc lool dong la donc amul amul amul beneen beneen beneen yëf parce que parce que c'est affaire bi parce que état bi moom moo moom moom moom moom moom moom moom dalay dalay dalay dalay abar rek c'est comme dafa jël dafa dafa dafa mel ni par exemple autoroute à péage mhm. état bi defar ko ba pare daal di ko jox free en concession mhm. donc ñoom ñëpp ils sont concessionnaires que ce soit euh, euh, kii nu mu tuddati Sonatel Expresso loolu moo tax bu ngeen gisee bu ñu bu ñu leen joxee concession ba dix ans après il revient il renégocie avec l' état xam nga ñu ñu fayaat ñu ma joxaat leen dix ans vingt ans donc loolu moom. ça veut dire que c'est c'est l'État du Sénégal qui est propriétaire donc ba nga xamante ne euh, nous espérons que tout simplement on va trouver une solution et puis non et l'État va non c'est sûr l'État va sévir ça y a aucun problème ma j'ai am naa ci yaqin ne normalement ci au courant de cette semaine là le problème sera réglé waaw parce que on ne peut pas défier comme ça un un État c'est pas possible c'est impossible c'est impossible et la réglementation xam nga nous nous donne raison surtout tous les plans ñun li ñu war a def yëpp def nañ ko on a payé notre licence on a sorti 300 millions pour payer notre licence à l'État du Sénégal on a acheté nos cartes à gratter on a les puces fu mu toll nii sunu numéro yi nous entre nous la direction on, on s'appelle def nañ essayé fu mu toll nii xam nga ñu ngi déggante si sunu numéro yeeg yëpp donc on attend juste le via sur le plan technique tout est fait ba nga xamante ne voilà on espère vraiment pouvoir euh, dès cette semaine pouvoir euh, avoir vraiment le hockey de Free et vraiment démarrer en en, en grande pompe voilà. récemment conférence de presse bi ne mhm. couleur bi Free utilisé seen couleur la woon. oui effectivement parce que nous durant les négociations xam nga euh, on était avec Tigo mhm. donc Tigo ñoom ils avaient le bleu bleu blanc. ñun ñu choisir de mettre le rouge et blanc même bu fekkee Free racheté na ko fri tout le monde sait que bëri na ay déclinaisons ils auraient pu vraiment prendre une autre euh, couleur mais ils ont peut-être qu'ils l'ont fait de façon euh, voilà délibérée ñu jëlaat rouge blanc comme ñun mais n'empêche ñun on est une société à part xam nga donc c'est Seigne Mbacké Faye qui a créé la société qui est là qui est le président directeur général qui a investi beaucoup d'argent xam nga pour vraiment permettre à des jeunes de pouvoir et puis permettre sax sénégalais yi quoi donc y a y des niches yoo xamante ne il faut que les sénégalais les exploitent parce que réew mi aussi sunu réew la xam nga et puis dans chaque pays vous avez des capitaines d'industrie ah foofu tamit on on fait vraiment appel à l'État y a des yaa xam nga am na ay nit yoo xamante ne état bi daf leen war a jàppale parce que beaucoup de personne dépendent de ces gens la donc boo leen bu bu fekkee bu fekkee da nga leen euh, da nga leen doyadil da ngay da ngay yàq loo xamante ne mënoon na éclore ba sénégalais yu bëree bëri bëri di ci gis seen bopp donc daal loolu mooy mooy problème bi et puis comme je dis xëy na xëy na ay difficultés yu ndaw nii rek la quoi mais je sais que vraiment on va on va on va démarrer et puis très bientôt nous espérons et puis incha allah soobee yàlla on donne rendez-vous au Sénégalais ils sauront que bon vraiment tubaab bi lu ñuy def nous on peut le faire et puis également on va on va on va vraiment démocratiser vraiment le téléphone Internet au au au Sénégal. est-ce ngeen soutien wu état bi vu Sénégal ngeen par rapport ak ñi nga xam ne dañ leen jéggaane ci biti lañ jógee ñoom sentir ngeen soutien bi. waaw soutien bi sentir nañ ko parce que l'état nous a donné raison état bi moom génnee na kii ne nii nii la Free war a def maintenant Free nag moo défier l'état donc le problème maintenant <laughs> c'est et l'état du Sénégal d'ailleurs on attend comme ni ma leen waxee ci biir semaine bi c'est sur que état moom du seetaan état moom kenn du ko kenn du ko jam naa ne espérons je pense que ils vont prendre ils vont prendre les décisions qui sied voilà permettre vraiment à, à la société aux, aux sénégalais yoo xamante ne jóg nañu pour liggéey réew mi ñu mën a liggéey dans de dans de très bonnes conditions waaw loolu daal mooy mooy mooy wax ji mooy wax ji léegi bu fekkente ne ni ñee nanguwuñu signé est-ce que da ngeen di compter reculer wala da ngeen di wutaat leneen. non ñun moom mënuñu reculer c'est-à-dire ñoom ils sont obligés <laughs> sinon day état bi déggoo li li ma la wax sànq ça sinon l'état leur retire directement la licence ils sont obligés ils sont obligés moi je pense que c'était fait à dessein xam nga rek pour tardel ñu comme que il venait peut-être de lancé seen produit yooyu xam nga rek. nit ñi affaire xam nga affaire baal boobal la quoi <laughs> xam nga gars yi moom voilà pour dire très simple mais je pense que c'est c'est c'est du dilatoire qu'ils ont voulu faire xam nga et je pense que comme l'a di c'est de la délinquance parce que aussi fële yow yaa ngi yaa ngi def li mais fële yaa ngi rey ay nit yoo xamante ne effectivement ils ont ils ont investi beaucoup d'argent di xaar un retour sur investissement nga leen di tardeel loolu aussi je trouve que àq la lan mooy sa dernier mot lan ngay lancer appel. waaw le dernier mot c'est d'abord vous vous remercier yéen ah féliciter leen vraiment ci ci ci ci liggéey bu rafet bi ngeen di def te ñëw bi ngeen ñëw fii mooy wan ne li nga xamante ne soxal na waa réew mi yéen a ngi ciy dox parce que vous auriez pu peut-être dem ci leneen mais problème bi ngeen gis ko ngeen xam ne le peuple sénégalais a besoin d'être informé ngeen ñëw vers information vraiment ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant di ñaan également je sais que vous êtes des jeunes sénégalais di ñafe ah yàlla aussi vraiment may leen wërsëg goo xamante ne waxuma la sax euh, au sur internet seulement mais ngeen dem ba am une licence de télévision vraiment euh, ngeen di def liggéey boo xamante ne peuple bi dina ci gis boppam maa ngi leen di remercier encore une fois. et voilà et je suis aussi euh, vraiment kontaan naa du fait que toi en tant que femme nga ñëw journaliste mais aussi ànd ak cadreur boo xamante ni jigéen la loolu aussi ça veut dire que góor baax na jigéen baax na donc loolu aussi maa ngi ci sant seen direction bi et puis di leen si gën a soññ daal ñu jox aussi les femmes leur chance maa ngi leen di sant di gërëm vraiment tout le peuple sénégalais parce que gis nañ depuis xeex bi bi ñu ko commencé on a vraiment un feedback extraordinaire au niveau des autorités religieuses, mais également des autorités politiques, des, des autorités qui sont également au niveau de l'opposition, nous ont appelé Hamga. Vraiment, nous, nous affaire ça et, et, et, ça nous, ça nous réconforte dans si nous Sénégalais, ils ont, ils ont, ils ont envie de prendre en main leur destin ci li nga xamante ne mooy société sénégalaise ñu gën leen jox doole ñu liggéey suñu réew. merci téléspectateur Equivox TV mbekk lañ doon am di dalal monsieur Abdou Khadre Fall nekk chargé de relations extérieures bu Promobile ñu leen di jox dig daje beneen yoon ak beneen invité.